عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق yàlla natt na li ñu fan yii natt yoo xam ne natt yu wëcc la waaye wax na ne itam ne képp koo xam ne teg nañ la nattu muy xiif muy dee muy ñàkk loolu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun boo waxee loolu yàlla dana la yërëm dana la jubal dana la dugal aljara kon ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci musiba bii nga xam ne yàlla benn ko ci suñu dëkk bi. waaw amul bis amul bis. yal nañu ko yàlla nangu lool te muy yoonu xoyaar bi. te yal na yàlla nekk suñu ndimbal yaara bi. xaar ñu ci yu mel nii yëpp. yal nañu ko yàlla defal yaara bi. lii nag ñu foog ne rey nañ ko. man nga leen awaat defuñu rek lu dul ne yokk nañ ko daraja defuñu rek lu dul ne yombalal nañ ko dugal àjjanaam képp koo xam ne génn nga daal ak génn. képp koo xam ne génn nga te yàlla tax laa génn. gàddaay ci yoonu yàlla sa bakkanu bés yi yàlla mu ne kooku maay méngoo mbiram loolu ku ne xam na ne moo xew fii ci suñ dëkk bi fan yii moo xew ci xale boobu ñu def loolu tey ndax yàlla wax nañu ne képp koo xam ne da ngaa dee ci sey kooku teewu mu nga ca moom la ko yàlla moom la yàlla wax xale bii tey ñii nga xam ne mu ñaaw wii wax na leen itam ne safara la jëm su safara rek rënt. ànd ak meram yàlla. yàlla dana ko mere. yàlla dana ko bañ. te yàlla dana fay ci moom. dana ko def lu mel ni li mu def. fii ci àddina. ëllëg ca àllaaxira mu yóbbu ko safara. waaye. dee bu jotee foog nit dee. ak loo mën di deewee nag dee ñëw na waaye am na dee yoo xam ne deewu teraanga la comme deewu xale bii waaye li ci métti lépp li ci gën a métti mooy Sénégal am na réew yu ko wóolu. ay am na ay peuple yu ko wóolu. am na ay peuple yu ko wóolu. narawukaay la ci diina. ne jàngukaay la ci ci jikko yu kawe. ñëpp ñëpp jàngukaay la ci jikko yu baax. mais utukaay yiw ay yu ngëneel la. ñëpp utukaay yu ngëneel la. yu gàddaay yu Sénégal yu réew. doom yu réew yooyu gàddaay yi jëm ci fii Sénégal ngeen loolu. ngir sàkku yiw. ngir sàkku yiw. sàkku lu baax. ngir sàkku ñu baax. ngir sàkku lu leen dajale seen lu leen seen lu jegeel seen borom. ngir sàkku lu leen jegeel seen borom. kon ñoom ñu war a def yëpp def nañ lañ war a def yëpp def nañ ko. waaye ñi ñu fekk si nag. waaye ñi ñu fekk si nag. ñooñu ana liñ mel. gouvernement bi fi. gouvernement yi ngi fi. gouvernement bu ngi fi. gouvernement bu ngi fi. sécurité ana sécurité am. bu muy defal nit ñi. bu muy defal nit ñi. nit ñi fi mu ne kenn amatul jàmm. nit ñi fi mu ne kenn amatul jàmm. kenn óolootul. ndax sécurité amatul. ndax sécurité amatul. mu ngi fekk ñii seen biir kër di leen rey. mu ngi fekk ñii di seen biir kër di leen rey. ana gouvernement ana sécurité. ana gouvernement ana sécurité. ana police. ana police. am bu sëñ Daara Dioumé ak taalibeem. am bu sëñ Daara Dioumé ak taalibeem. feeñal njàmbaar feeñal lu nekk. ñu feeñal njàmbaar feeñal lu nekk. ci kaso bi naan dañ koy yar. jàpp ko yóbbu ci kaso bi ne dañ koy yar. dëgg dëgg. loolu yomb na lool xam ngeen. ku néew doole néewal ko doole yomb na lool. waaye nag ñi nga xam ne ñi nga xam ne seeni ngànnaay. di yàqal nit ñi. di leen rey. di leen fekk ci seen biir kër yi. taal ci seen néeg yi. di taal ci seen néeg yi. ñooñu nag ñoom. ana ñu. ana ana ana ana doole yi ñuy woon seen daara yi. ana doole yi ñuy woon seen daara yi. ana liggéey bi ñuy woon seen daara yi. ana liggéey bi ñuy woon seen daara yi. dara. dara. waaye nag. la xew métti la. métti na lool ci bëri na. métti na leen ci mboolem koo xam ne jullit nga. waaye nag jullit moom du am lu dul yàlla teg rek mu nangu ko ci xol bu gëm yàlla yal nañu yàlla may loolu yàlla yi waaye ñii di def lii xamuñ lu ñuy yàq te Sénégal sécurité. ndax boo demee ba àdduna bi gis ne Sénégal amatul sécurité. amatul amatul euh, làkkuwaay. amatul làkkuwaay. population ba tiit ni population ba tiit nañ. kenn kenn sàmm leen. kenn kenn sàmm leen. yaakaar nañ ne ñooñu ñu yàqal Sénégal loo xam ne. yaakaar nañ ne ñooñu ñu ngi yàqal Sénégal loo xam ne. mënuñ ko koo defaral. ku amoon alal na daf fiy liggéey si. ku amoon alal na daf fiy liggéey si. dootu ko defati du ko xool ndax sécurité am fi. te loolu. ku nekk xam na li ñuy yàq ci économie réew. ku nekk xam na li ñuy yàq ci économie réew. amatul sécurité. Sénégal amatul sécurité. touristes yi daal ñëw. touristes yi daal ñëw. dootul ñëw ci biir sécurité ndax sécurité amatul. bu boobaa dañuy yàqal Sénégal économiquement yàlla xam nañu. su boobaa dañuy yàqal Sénégal économiquement. yàlla xam. yàlla xam. ñoom gouvernement bi xam nañ. ñoom gouvernement bi itam xam nañ. kon nag ñoom ci seen bopp. kon nag ñoom ci seen bopp. ñii ñoom la ñuy jàllale. ñii ñoom la ñuy jàllale. mënal ñu dara. mën beneen bi wax ne mënal leen ñu dara. lu ñu neex ñu def. ci biir réew mi. ragaluñ kenn. ragaluñ kenn. faalewuñ kenn. faalewuñ kenn. waaye bu sëriñ daara bi cabee ndongo. ñu ne àdduna tukki la. Touba Gabon dal ñu jóg. Touba Dame Faa. Touba Dame Faa dal ñu jóg. dafay nit ñeeg wax yoo xam ne. dafay nit ñeeg wax yoo xam ne. ñoom seen bopp xamuñ lu muy tekki. ñoom ci seen bopp xamuñ lu muy tekki. waaye li ñuy tekki nag. waaye li ñuy tekki nag mooy lii. li ñu war a def mu tekki mooy lii xew nii. li ñu war a def mu tekki mooy lii xew nii. ñu war cee def taxawaay boo xam ne. ñu war cee def taxawaay boo xam ne. mbooloo bi ñuy wane ci sëñ daara yi. mbooloo bi ñuy wane ci sëñ daara yi. ñu wane ko ci ñaawteef yii. bu ñu ko defoon nag. dañ xam ne FBI yaa ngi fi. ñu xam ne. FBI yaa ngi fi. FBI yaa ngi fi. te ñu ngi fi. te ñu ngi fi. Amérique ngeen di jëflanteel. Amérique ngeen di jëflanteel. ndax xam ngeen Amérique. ndax xam ngeen Amérique. amul caaxaan. yëpp dana ñëw def ko. li mu war a def yëpp dana ñëw def ko. fi mu war a jaar yëpp dana ñëw jaarale fa. fi mu war a jaar yëpp dana ñëw jaarale fa. ba fañ war a àgg. ba fañ war a àgg. gis ni gis ni def gis ni def ñaawteef yi. gis ni def ñaawteef yi. danañ danañ danañ àgg si ñoom. danañ àgg si ñoom. kon nag. loolu nag. fexe ba am euh, euh, rapport yu rafet. fexe ba am rapport yu rafet. suñu digganteeg. état yi. suñu diggante ak état yi. rawatina États-Unis. rawatina États-Unis. war na Sénégal bu nekk mu war koo sàmm. war na Sénégal bu nekk mu war koo sàmm. war na Sénégal bu nekk mu xam. war na Sénégal bu nekk mu xam ko. li mu war a defal Sénégal. li mu war a defal Sénégal. waaye warul koo yàqal. waaye warul koo yàqal. lii ñu def nii. lii ñu def nii. xale yu ndaw def ko. xale yu ndaw def ko. xale yu ndaw xamu xale yu mag. xamu xale yu ndaw xamu xale yu mag. luñ ciy jëlee pour Sénégal. luñ ciy jëlee pour Sénégal. mirakkarakan tiijere en dortukono ɗum sa alal ɓoyis en dotru oɗo tijjel sa alal indi ko ɗum en dortukono yewtude sénégal dottuwamo wayno ci diine en dotru oɗo toɗinewne pour que sénégal dottuwano ci diine dotturamo kayla dotturamo kayla ci diine ci diine en dortu oɗo yewti en dotru oɗo yewti sénégal rewni rew mu baax la nde sénégal rew mu baax la rew mu nango ñaan la rew mu nango ñaan la en dortu nango yewti en dortu nango yewti li utu loolu nag li utu loolu nag Sénégal yëpp. moo tax Sénégal yëpp. jaratul dara ca àdduna. jaratul dara ca àdduna. ak lu mën di wax ak lu mën di coow. jaratul dara. wàcc nañ seen bopp. wàcc nañ seen bopp. loolu nag. sëriñ bi nag mu ngi ñaan gouvernement bi. mu ngi ñaan état. mu ngi ñaan état bi. ñu bàyyi seen xel ci loolu. ñu bàyyi seen xel ci loolu. ndax ñoom ñoo ciy loroo. ndax ñoom ñoo ciy loroo. ñoo ciy gën a loroo. ñoo ciy gën a loroo. ñoo ciy gën a ñaawal seen der. ñoo ciy gën a ñaawal seen der. bu ñu demee ba Nations Unies ne Sénégal amatul sécurité. ndax bu ñu demee ba Nations Unies ne Sénégal amatul sécurité. te mën naa am. te mën naa am. ci yii rek lay bàyyeekoo. ci yii rek lay bàyyeekoo. bu baax pour Sénégal di placer wu ci àdduna. su boobaa nag pour Sénégal di placer wu ci àdduna. Sénégal du xam-xam Sénégal bu bëri xam-xam bi. Sénégal bu bëri xam-xam bi. Sénégal bu bëri presse bu pànk bi. Sénégal bu bëri presse bu pànk bi. loolu yëpp mu ngi Sénégal. loolu yëpp mu ngi Sénégal. waaye nag ana Sénégal ci seen biir ñoom. waaye ana Sénégal ci seen biir ñoom la. Sénégal bu benn suuf rek. Sénégal bu benn suuf rek. mooy nit ki fi dëkk. ak nit ki fi ganas. ak nit ki fi ganas. ki dëkk bu amatul sécurité. ki fi dëkk bu amatul sécurité. ki gane si amul sécurité. ki gane si amul sécurité. kon ana Sénégal. kon ana Sénégal nag. ana ana góori Sénégal. ana góori Sénégal. ana góori Sénégal. ana xam-xamu Sénégal bu baax bi. ana xam-xamu Sénégal bu baax bi. ana presse Sénégal bu baax bi. ana presse Sénégal bu baax bi. dara. dara. zéro. zéro. loolu gouvernement war na cee bàyyi xel. loolu ñu dem presse bi ci boppam war na cee bàyyi xel. loolu ñu dem presse bi ci boppam war na cee bàyyi xelam. ndax li ñuy wax Sénégal nag juróom. jullit ñi. juróom-ñeent fukk ak juróom lañ. pour ça. pour ça. waaye dëgg dëgg. jëf-jëf yi ñuy gis nii. jëf-jëf yi ñuy gis nii. du ñu wane ne jullit bu baax dëkk la Sénégal. Sénégal métti na lool yàqu na lool. Sénégal métti na lool yàqu na lool. télévision bi. presse bi. presse bi. réseaux sociaux yi. sectionnism. yooyu yëpp boo koy gis da ngay jaaxle rek yii lan la. mel ni gouvernement. yoonam nekkul ci jikkoy nit ñi. yoonam nekkul ci jikkoy nit ñi. yoonam nekkul ci li ñuy def. yoonam nekkul ci li ñuy def. yoonam nekkul ci marché bi. yoonam nekkul ci marché bi. seer na seen yoon nekk ci. marché bi si seer na seen yoon nekkul ci. dund bi seer na seen yoon nekkul ci. dund bi seer na seen yoon nekkul ci. mooy bu sëriñ daara cawee ab taalibeem rek ñu ne xanaa àdduna tukki na. am xam bu nekk nag ñu gëstu ko andi ko teg. article tel waatel article tel lu nekk ñu sos ko indi teg. waaye lu métti lii doo gis ñu wax ci. te liñ ciy pensé nag moom la sëriñ bu wax léegi. buñ demee ba gis ne Sénégal amatul sécurité. kenn dootu fi mën di fi wut ci dara du boobaa loolu département la pour ñoom sëriñ bi ne dañ mottale ko loolu muy Sénégal peuple ñun Sénégal peuple nañu xam daraja bi ñu yàlla may daraja bi ñu yàlla may ba suñu réew mi ba suñu réew mi def ko réew moo xam ne ñu def ko réew moo xam ne addina addina ñëpp nangu nañ ne nangu nañ ne réew réewu dem ñaan ci yàlla réewu ñaanukaay la réewu ñaanukaay la réewu ajukaay la réewu ajukaay la réewu ut yàlla la réewu ut yàlla la réewu ci mbaax réewu ut mbaax la loolu yàlla tëralee na ko Sénégal loolu yàlla tëralee na ko Sénégal xale bi ñu rey ak bàyyam loolu lañ ci doon ut xale bi ñu rey ak bàyyam loolu lañ ci doon ut Sénégal yi fayee leen Sénégal yi fayee leen lii wan leen na ñun duñ baax dara. jarul dara. ay bande rek la. ay bande rek lañu. ñëw am alal danañ la rey nangu sa alal. ku fi ñëw am alal danañ la rey nangu sa alal. loolu rek la tekki. loolu yomb na lool. loolu yomb na lool. waaye nag. kenn amul ku la sàmm. kenn amul ku la sàmm. waaye yàlla mën na laa sàmm. ñun. ñaan daara ñu nekk yëpp. sëriñ bi mu ngi ñaan daara yi fi nekk yëpp. lu ngeen mën di jàng ci ay kaamil jàng leen ko. lu ngeen mën di jàng ci ay kaamil jàng leen ko. ñaan yàlla. ñaan yàlla. pour Sénégal am jàmm ñoom Sénégal am sécurité lu ngeen mën ci ay xamukaay ak ñaanukaay def leen ko ngir waxtu Sénégal yéen ñooñu ñuy dóor ak a caw kaso bi. ak teg ci kaso bi. yéenay sàmm Sénégal. yéenay sàmm Sénégal. seen kàddu yooyu. ndax seen kàddu yooyu. seen ñaan yooyu. seen ñaan yooyu. ci la yàlla di wàccee barke. ci la yàlla di wàccee barke. ci la yàlla di maye nit ku kóolute. ci la yàlla di maye nit kóolute. te yéen a koy def. te yéen a koy def. kon yéen la yàlla di sàmmaloo Sénégal. kon yéen la yàlla di sàmmaloo Sénégal. ñii dafa teg ci seen loxo rek. ñii dafa teg ci seen loxo lañ leen di nattoo rek. bu leen yàlla dimbalee ñu def lu baax baax na. ci ñoom lay dellu. waaye ci lu gën a bon rek ci la ñuy dimbalante. te loolu ku ne xam ne ne natt la. loolu ku ne xam ne ne sàmmut réew. sëriñ bi nag ñu wax bopp Sénégal. ñu ngi wax gouvernement Sénégal. teraanga bi leen yàlla jox bu leen ko sant. seen réew réewu ñaanukaay la. seen réew réewu utukaay yi yiw la. te ay jàmbaar lañu. ay jàmbaar la fi jógee di fi ñëw. du ñu ay nit ñu dof. américain dofut. ghanais dofut. ghanais dofut. nigérien dofut. nigérien dofut. waaye bu ñu leen daal def seen xol ñu nangu ko. waaye ñu leen daal def seen xol ñu nangu ko. loolu dëgg la. sàmm. kon nañ ko sàmm. ñu ngi jaaleel Macky Sall ci problème bi. Serigne bi mu ngi jaaleel Macky Sall ci problème bi. ndax problème moom la moom. ndax problème la moom. parce que nekk nii Sénégal mu ngi ci loxo FBI ak CIA ak Amérique. ndax fi mu toll nii Sénégal mu ngi ci loxo FBI ak CIA ak Amérique. moom xam na lu muy tekki. te loolu moom xam na lu muy tekki. kon musiba nii musiba am la. yàlla ñu ci yàlla dimbale yàlla. yal nañu ko yàlla dimbale yow tam. am na ñu fayee koo de. amul ñu fayee koo de. buñ ko amoon itam sax buñ ko def. ndax xool nañ suñu gouvernement. waaye nag suñu gouvernement yi dañoo war ne jar nañu xëyal ko. nañ ko gis ci sécurité bi. nañ gis kóolute gi ci mbedd mi. nañ ko gis ci kër yi. loolu dara amatu ci léegi. nattu la. yoon nañu ko yor ak teggin. ñoom seen daara yi. ñoom seen daara yi. ñu jël seen kaamil yi. ñu jël seen ñu jël seen kaamil yi. ubbi leen seen kaamil yi. ubbi leen seen kaamil yi. jàng jàng. ñaan yàlla. ñaan yàlla. yàlla musal ñu ci ay yi di ñu lor. yàlla musal ñu ci ay yi di ñu lor. di ñu lor. di ñu lor. di ñu lor di ñu. di ñu yor. di ñu yor. yàlla na ci yàlla génnee. barkeel Sénégal. yal na yàlla barkeel Sénégal yaa rabbi. yal na yàlla mosal Sénégal. yal na yàlla mosal Sénégal ne. ci ay doomam lu ma gën a Sénégal gën a yàqoo rek ci ci. yal na yàlla mosal ci. yal yàlla setal Sénégal. yal na yàlla setal Sénégal. ci ñooñu. allahumma salli ala sayyidina alayka salatullahi thumma salamu fa barhaamu jiddun